ば ndigalul Sidil Muxtaar Mbàkke sun yaakaar tey ak ñaan yàlla mu yàgg fi lool ci wér yàgg ñoo jiite. mu di leen jottali ab nuyoom rek. ak cantam. ak mbégteem. démb. tey sog a ñëw. mi ngi leen di nuyu lu bari. xamal ne fàttewuñu ci genn wet jëmm yi mën naa sore jëmm yi mën naa sore waaye xol bi du fi jóg ak xel mi ndax xam na ne ñun ñoo di njabootam ju nekk ci biir wana wi kon gu jege la doon kon nag lool nag. tax na muy muy muy euh, kon nag loolu tax na muy dollee wax mbégteem rek. ndax. jataay bi ndax jataay bi. bañ ko tàmbalee ba léegi. ko tàmbalee ba léegi. xam na ne waxtu wu nekk. xam na ne waxtu wu yéene ji. ak Pastef bi. bi. doole ji tolluwu ni. doole ji tolluwu ni. waaye li am solo. mooy yéene. ak Pastef. loolu waxtu wu nekk. ñoo ngi koy gis. at mu nekk rek. day gën a tandu. gën a yokku. gën a kawe. lool nag. Pastef rek moo ko man ak yéene. sëriñ bi yëg na ko. bëgg na ci lool. bëgg na ci lool. lay njëlbeenu mbégte la. lay njëlbeenu la. da leen a waxoon. waxtu wu nekk. waxtu wu nekk. lay mbégteem ci yéen. lay ci ñun. ñu ànd nekk benn. yéeneente jàmm. lu waay yéene sa bopp. nga yéene ko sa moroom. te loola. ñi ngi ci. ci lu du dëgg. lu du dëgg. du yàgg. kon bu amee daaw. am daaw jéeg yokuren kon mbégtam sëñ bi yokuna yokku na te mbégam rek mooy sun njariñ biñ koy tàggu di ñëw nee mu ne ko doon naa la bëgg a woolu sax ndax bëgg nga dem dindi sab jataay rek moo ma fa doy mu ne moom ab jataay sëñ bi rek ko fi doy waaye li am solo ci moom xel mi ak yéene ji uh, ku fi toog rek loolu doy na ci mu ne ko boo demee nañ la xool nga xool leen ginnaaw gis nga ma na nga leen xool ñu xool la kon sëñ baa ne foofu lool nag ginnaaw lool rek moo ko ci doy eh, doy nag sant yàlla bu baax ñu sant yàlla bu baax te xam ne sëñ bi fàttewunu ginnaaw fàttewunu nag sant yàllaa ci war cant gi fi mu tàmbalee alxuraan ji nga xam ne moom lañ ko ubbee mooy bëgg-bëggab sëñ bi mooy bëgg-bëggab sëriñ Tuubaa it mooy sun njariñ itam moo ginnaaw moo fi jiitu nag. ba mat ab lim. mat ab lim. fanweeri kaamil lu topp. loolu mbégteem sëñ bi la. sëñ bi bég ci lool. yal na nu yàlla bégal ci loolu. te ñi ko doon def. sun borom wéral leen. tam yàgg ci ñoom lool. ci barke Serigne Touba. ñi ci toppitam waa daayira bi. lim leen waxoon sànq rek. bëgg-bëggab sëñ bi moom. mooy ànd nekk benn. ndax loolu. sunu njariñ ci la nekk. tey ak ëllëg. nit ki nag. bu fekkee lam lay digal. moo la ca jiitu. man la ca. mujj la ca. te jigadiwu ko. kon ba mu koy man ba di ko tal. da nga cay am fulla am ca fayda te loola mooy fas yéene sax ci ndigal rek te wattu lépp lu ñuy tere te jëfe ndigalal sëriñ bi lool rek moo ñuy jariñ dolli yar bi dolli teggin yi dolli sutura si te dolli muñ gi bërëb boo fa bëggee àgg il faut que da ngay muñ tey góor góorgóorlu tey jëf tey noppi ndax loolu ci lañ fekkoon sëñ bi te moom la ñuy digal ba leegi ci la ne li seex mi wax léegi sëñ bi ne ko noppil dane sëñ bi daa sonn nañ ko noppal dañuy waxtaan lu bari ci loolu mu ne ko Moustapha liggéeyal sëriñ Touba lu ma ci fekk baax na kooka nag mel na ni kon day dog a xëy kon ñun ñi nga xam ne yeewoogun kon nu ñuy def xanaa góor góorlu rek fas yéene am pastéef rek ndax takki loxo takki tànk buntu bàmmeel sëriñ Tuubaa rek kon bi biñ koy tal biñ koy tal lam ñuy digal nañ ci góor góorlu ndax jariñu ko dara dañ ko koy njukkale rek ndax mën a luñ ko dara ndax lépp moo nu ko mënal ku la mënal lépp te bàyyee la ak sa lépp da ngaa war a góorgóorlu bañ a yàq lam lay defal te defar gi mooy yar teggin sutura wormaal sa kilifa yërëm ndaw ñi boot jigéen ñi buñ ci saxee rek. sun borom mën na noo dimbale ci lépp li ci des itam jataay bi jataay bi jataayu mbégte la euh, ndax kenn ku nekk kenn ku nekk li ñuy def lépp li ñuy def lépp boo sañoon toggoo ko def ko ba noppi wàññiku nag bokk ak yiw wi ñi ngi ko séqal ñëpp lool ku ne xam nañ ko ci saxool kon jërë ngeen jëf yàlla na yàgg sëñ bi barkeel ñu tam yàgg ci barke Serigne Touba yéen jigéen ñi li ñuy faral di wax rek seen ñaar dërëm yii seen fukki dërëm yii bu leen ci sonn du ngeen ci sonn du ngeen ci daj yéen a njëkk ci kër gi dem ci waañ wi man ci daayira bi kon jërë jëf. ja jamonoy sallallahu taala alayhi wa sallam buñ masaa di xare ji dañuy war seen gileem ya jigéen yi yanu seen bagaan ni ndox topp ci ñoom fu ñu sonne mbaa ñu mar ñu yësal jigéen ñi yenniku ñu naan yanuwaat jamonoy sëriñ Tuubaa ji noonu la rek fu góor ñi taxaw ngeen fekk leen fa man leen fa mujj leen fa dellu ci seenub liggéey loolu nag maam jaara busa ma ca poroxaan moo nu ko defal moo nu ma moo leen may doole jooju kon yàlla na yàgg ci barke Serigne Touba yàlla kàttanal nu ci barke Serigne Touba te yombal lépp li tax ñu mën a jëf luy tax ñu mën a jëf ngërëmul sëñ bi ndigalal sëñ bi ba am ci ngërëmam ndax sëñ bi moom. li ciy maye dara mooy Pastef rek lu mbir rëy rëy lu mu tuut tuut bu dee bëgg sëñ bi rek fekk na yàlla dogal na ko ba noppi ka cay am ndam nag mooy borom Pastef ba rek mooy lii nu ne rek Pastef ba rek moo am solo kon jërë ngeen jëf yàlla nañ ko teewe déwén ci barke Serigne Touba te nga yàgg fee ñëw ci barke Serigne Touba barkeb Xaadimu Rasuul yàlla yàggal fi Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke li ciy mbégte mi it dafa bari lool ndax jàng benn kaamil dong mën naa defar tund wi mën naa defar réew mi lool nag kon lim buñ ci jàng rek alhamdulilah ba ko ñaareel dajale sa bokki jullit toog waxtaan yendoo leen a berndeel ñu yendee waxtaan yi woowa rek ni mu toll ku ko xamoon bët bu set rek nga def ko rawatina nag buñ ko defee wàññiku def ko addee Serigne Touba kon jërë ngeen jëf nu ngeen sant Serigne bi daal ba waral bis bii sëñ bi sant na lu ko raw teg cantam mu. moo nuy defaral fii ak fële kon alhamdulilahi rabbil alamina ñaan mu yàgg fi te wér rek ci barke sëñ Touba jërëjëf Mbacke kon nag déwénati rek déwénati ñu daje fii incha allah rabbi déwénati waaw. fukki penc ci tay bi ak juróom suñu xëyee bis bu ne dañ fa wàcc kaamil ñaan Cheikh Sidi Mouhtar yàgg fi te wér ndax danoo defal loo xam ni ci sëriñ Touba leen ko gëj a amee. muy li nga xam ne moom la mag ñi gën a bëgg di sonn ci dëkk yi lu ne ñu daj ko fa bañ mu gent mu dikk mbooleem foo xam ne gentan na sancaan nañ ko nga xam ne suñu maam yafa dëkkan mu wax ne maam ya fa dëkkan ña ngay ña ngay sant cant googu ci yow man xayaam lépp ci ci ci ci moom la jaare moo tax ñu jikko njukkale saa yu xëyee daara junne dafa wàjjub kamil ñaar mu yàgg fi ti wér moo ko njabootam li tax ci sëñ Tuubaa leen ko mu jëkk na amee nag ba nga xam ne sunu maam dafay nekk yàlla dogal sëñ Mor së sëñ sëñ Mor sëñ Mor wàcc bu liggéey dafa woo sama maam ne ko yaa ma ci doo yaa koy taxaw muy maam mu dumbe sa mu dumbe mbaar moo taxaw moo taxawee sëriñ bi. nga yi ko xamul waaye yow xam nga <laughs> wees nga xam ko yow loolee nag sëñ bii moo ko feddali ci noonu moo tax nu am ci moom cofeel goo xam ne yemaliwuñ ko dara dara lu sëñ Tuubaa na la wóor ne daal noo ngi ñaan mu yàgg fi lool te wér ak njabootam gi ndax képp koo xam ne rek xam nga ko ñi ñi bokk ci yoon wi sax ñaan gi nu ñaan ñu ngi koy ñaan kon nag yàlla na fi yàgg lool te wér kon nag kon nag euh, moom daal ginnaaw gis nan la li nga xam ne moom leen gën a bëgg moo di sëriñ bi nangu sumu taalibe njaboot gi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw. muy gone yeeg jigéen ñi mu def ci ñoom ak taalibe te dara bañ leen yàq ci taalibe ga ndax lii lii fëkkee bari na lool waaye noo ngi leen xam ne daal bu duggee sa nopp mel leen dugg na noppam nanu dimbale daal nga xam ne gone yi nga xam ne ñoo nekk suñu gannaaw bëgg lu baax ak jigéen ñi nga xam ne mooy seeni waajur di seen rakk di seen mag moom daal na na seytaane dàq ci ñoom ba dara du mën ci ñoom dara nga xam ne sëñ Tuubaa daal duñ ko booleeg dara rek loolu rek lan lay ñaan mag tubaarkalla Sarvata